ci mag magi magi Sénégal yi bi mu liiwee téere bi dafa ni ndokk ba yontu yàlla Muhammad amul luñ koy nëbbal <laughs> su amoon luñ koy nëbbal doomu maam faawaate wele ji dana ko wax ndax kii wax ne lépp rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ni ku bëgg a xam yonent bi wala nga maroon bëgg a màndi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <clears throat> jàngal xilaasu zaab fi siirati xayril arab soo ko jàngee lépp lu la umpoon ci rasulullah da nga ko xam lépp mu la réeroon ci yonent bi da ko xam ndax alaaji Malick bàyyiwul dara yonent bi ci téere bi moo tax bi mu ko taalifee ba pare daf ko yóbbu jox ko borom xam-xam yi téere bi dem na ba Égypte mook diwaanu Cheikh Alhaaji Malick bi dem na ba Égypte ci naar yi ñu xool ko vérifier téere bi delloo si xam ne Cheikh Alhaaji Malick kenn du moom kenn du moom ci xam-xam xam dafa leer xoolal alaaji Malick benn bëyit ci xilaasu zaab xoolal Zubayru nil xulafaa moom day fekk lu nit ñi bind def ko téere moom mu def ko benn bayit ndax xam-xamam bu yaatu al asharatu al mubashiruna bil janna bil janna waaw muy Aboubacar mhm. Umar Ousmane Ali Saad Saïd Zubairu Aba Abay Ubaydata Talatu Abdourahman ibnu Awf xoola moom benn bayit rek la ko la leen jox ci xilaasu saab Zubairu ñul xulafaa rek Saadun Saïdun génnee leen ñoom fukk yépp ci benn bayit ci xilaasu saam loolu nag li muy wane mooy dimension xam-xamu cheikh alxaaji malik si radiallahu taala anhu ak cofeelam nag ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax Maodo dafa soppoon yonent bi dafa bëggoon yonent bi ba daan wax mag ñi man julli yi may julli woor yi jàngale yi téere yi ma taalif loolu yépp ëllëg yowmal qiyaam présenté wu ma ko yàlla ñett rek laa koy présenté. téere bi nag laa bëgg ngeen wayal ma ko Abdou Aziz. ñett rek. juróomi bayit ci xilaas zahab. bil xilaasi wa bil mamduxiyaati lana ilaa ya rabbi wa tawfiqa wa yuzara. wa bil xilaasi wa bil mamduxiyaati lana oh, ilaa ya rabbi wa tawfiqa wal yusra tagg xilaas bi ah, ma tagg xilaas bi taggal xilaas bi waaw àggaleel yaa man ataa bi xilaas سودان والغرارا وبالقلاس وبالممدوح أعطي لنا إخلاص يا ربي وبالممدوح التوفيق واليسار زينت مزلا على غير البرية قد أنزل الله في أمده زوارا وبالخلاف وبالممدوح أعطي لنا إلا زيارتي والتوفيق واليسار كل وما أتى مجلس الإبليس مجلس در اليتيم لنا أرجاء تزارا وبالقلاس وبالممدوخ أعطلنا يا ربي والتوفيق واليسار كلك أصلت مدخته وزرت روضته وتوت بيت الإله الحجر والحجر وبالقلاس وبالممدود أعطينا إخلاص يا ربي وتوفيق واليسار كنك ما أتى خليز الإبريد مليا در اليتيم لدى أرجاء تزرع وبالقلاس البلوغ أعطي لنا إخلاص يا ربي والتوفيق واليسار كل قوة خالص إبليس مجلس در يتيم لدى أرجاء تزرع وبالقلاس وبالممدوخ آتي لنا إخلاص يا ربي والتوفيق واليسار كلك فالله أكبر جل الله خالقنا سبحان من زينا الأله وزيارا الله أكبر جل الله خالقنا سبحان من زينا الأله وزيارا كلك فالله أكبر جل الله خالقنا سوان من زيارا على وزيارا الله أكبر جل الله خالقنا سبحان من زينا الأخلاق والزيارة الحمد لله رب العالمين الحمد لله ذي الإيجاد والخدام الحمد لله ذي تيسير آه الحمد لله هذا شيخ رباه آه الحمد لله رب العالمين على هدي الآتيات من سيق الكفى وزرع baarakallaahu jërëjëf Abdoul Aziz Ndiaye mu mel ni soppe yaa ngi message fu nekk ci àddina bi di feeñal seen cofeel ci xasiida yu am solo yi nga xam ne yaa ngi ko yëkkati mu mel ni oustaz wax nañu ni dix minutes moo ñu dese waaye xam naa ci cinq minutes avant may jox Abdoul Aziz ban dénkaan rek ngay jox soppe yi nga xamante ne bii ñoo jël seen yaakaar def ko ci Seydil Hadji Malick waaye itam bëgg Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu yóbbal bi nga leen di jox pour ñu mën koo yóbbaale Tiwaawoon ci gàmmu gi jërëjëf Oustaz Modou Fall yóbbal bi ma leen di jox mooy thème centralu gàmmu gi rek laa leen di fàttali waxoolu li naa si xusnan xusnan Oustaz ku bëgg lu baax da wax lu baax ku bëgg am lu baax dangay def lu baax ku bëgg am lu baax dangay ngay ànd ak ku baax wala nga ànd ak ñu baax ñi nga xam ni nag ñoo jël seen yaakaar wékk ko ci Cheikh Al Hadj Malick ak Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu ak ñi mel ni ñoom fa ñu wékku wékku na. Mm-hmm. fa nu yaakaar itam. yaakaaru mm-hmm. damay wax ni ku téye Cheikh Al Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu téye nga ci buum goo xam ni du dog téyel bu dëgër. ku téye sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu téye nga ci buum goo xam ni du dog téyel bu dëgër alaaji Malick ku ko am mag ñi xoola dangay gis nitu yàlla boo xam ne cër bi mu am kenn xamul nu mu toll waaye day ñurux xam nga ñurux hmm. ñurux mooy dëkk fu sore di jóge foofu di dox di jóge foofu di dox ba ñëw ci cheikh alxaaji Malick si radiallahu taala pour lan pour am rek Cheikh Seydil Hadji Malick Sy radiallahu taala anhu gis nga Maodo li mu bëggoon defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bi mu demee ba Medina mu ni fa lay dëkk mag ñi ko toppoon ñépp loolu lañ ko bëggoon defal dañoo bëggoon dëkk ak Cheikh Al Hadji mhm. waaye moom moo xam ni dëkk ak ñoom mag ñi dëkk ak moom moom ci benn place mu génnee leen kenn ku nekk gox ba nga dell dëgg jóge woon nga dem fa niitalaat fa nekkaat fa Cheikh Al Hadj loolu moo ëpp njariñ. Mhm. kon damay wax ni képp koo xam ni yaakaar nga Cheikh Al Hadj yaakaar nga yaakaar ju dul yàkkiku de yaakaar nga koo xam ni sa yaakaar du yàkkiku képp ku yaakaar Serigne Babacar si radiyallahu taala anhu teg nga sa loxo foo xam ni bu ko teggeeti téyel te nga bu dëgër ndax jàpp nga ci daj dëpp gi. jaaraama jërëjëf. muy Cheikh Al Hadj yaakaar naa kenn doyalul li koy wan rek mooy message yi ñuy jot waaye nag lu dul doy loo ca am da nga koy doyloo incha allahu taala daañu ànd ak yéen ba keroog ñuy àgg ci guddi gi nga xam ni mooy guddi gi nu jagleel sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam oustaz Pa Makhtar Sylla jaaroon ci émission leeral burdu soppe yi réclamé waat ko ne na ñëwaat ndax xam-xamam yaatoom waaye itam pédagogie xam naa damay bàyyi rek Abdoul Aziz Ndiaye mu tàggatoo ak soppe yi am na nag ñuy laaj sa numéro xam naa dañ laa bëgg envoyé ay affaire xaw ma orange moo ne la xaw beneen bi lay doon comme man orange comme man orange moo ma sponsorisé ci sama émission leeral burdu xam naa orange moo ne lañ la koy envoyé ma bàyyi la rek nga joxe numéro bi tàggatoo waale ak soppe yi lay bàyyi xel jërëjëf oustaz ñu ngi lay béggee bu baax di la ziar Eh, yow suñu diggante dootuñu ci wax. mun mhm. la ñaanal yàlla rek. nuyu Oustaz Pape Makhtar Sylla moom it di sagu senegal nga xam ne képp kuy téye micro nga ndax mbaaxam. Mhm. Eh, tabaarakallaahu jiital Serigne Babacar Sy Mansour. xalifa général de Tidiane ak mbooroom xalifa yi ne ci dëkk àdduna bi yëpp yal na yàlla guddal seeni fan defal leen jàmm ah di nuyu suñu bunt nag kër Seydil Hadji Malick Serigne Sidi Ahmed ci Jamil oustaz nga xam ne ndigalam ñu la ñu ñëwee fii mm-hmm, mm-hmm. yal na yàlla defal ko jàmm moom it ak mbooloom njabootu Seydil Hadj Malick waaye ñi ma àndal nag nga xam ne eh, tabaarakallaahu ay jàmbaar lañ yal yàlla defal leen jàmm lafal leen cet oustaz ñu ngi nuyu bu baax bàjjen umm bu Seydi Jamil mm-hmm. ñoo ngi ko ziar bàjjen Zeynabu bu Serigne Mbaye Abdou moom ñu ngi koy nuyu bu baax nuyu sunu ay wayjur di leen ziar waaye di nuyu tabaarakallaahu mam Balla Diagne mama Seyda Eh, tabaarakallaahu tata Mariam ca États-Unis ay soppe yu baax lañu ñu ngi leen nuyu di nuyu baax Lamine jàllo ku baax la ca Pikine mm-hmm. ñiy tag yonent bi xam nañ ko long voyage yu ñuy def yëpp day jël bon yu bari ngëbal ñu ko mm-hmm. eh, tabaarakallaahu ñu dem fu ñu neex te du ñu yëg méttitu essence bi yal na yàlla defal ko jaamu ci barki sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu colonel baas moom it di ko bégee bu baax a baax oustaz numéro bi 77 la 726 mm-hmm. 44 79. 77 726 726 44 79. numéro Abdou Aziz Ndiaye. waaw wala 587 18 28. macha allah. daaw nag def nga ma ko gàmmu daaw ma ñëw fekk <laughs> appel yu bëree bëri yoo xam ne tabaarakallaahu mu ngi noonu macha allah yàlla na yàlla defal la jàmm oustaz yow tamit dëgg la ku mën a sagal nit nga loolu yàlla def na ko koo wax rek mu ne la oustaz Modou Fall xol bu rafet bi dina ko may lu ne te nag ñun lu ñu wax ci yow rek dëgg la ndax ñun ak yow du tey. dëgg la yal na yàlla defal la jàmm ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf Abdoul Aziz Ndiaye yaakaar naa soppe yi bég nañu ba ba léegi ñu ngi naan Abdoul Aziz foog mu joxe numéro ndax xasida yi tabaarakallaahu ni nga koy yëkkatee dafay dugg ci xol. ma gërëm la bu baax ci teewaay bi ndax damay faral di wax ni bokk nga ci ñi nga xam ni ndaw ñi sopp nañ la bëgg nañ la ndax yàlla ak li ngay def. fa tabaarakallaahu nga nekk koo xam ne réew mi ñëpp la sopp mag ñi it bàyyi la xel sag boobu nag yàlla na yàgg ma nuyu ñi nga àndal ñëpp alxaaji Pape jóob boroom verte bi jóob nag euh, moom sama diggante ak moom àddina bi yëpp xam nañ ko nuyu sama sama parrain Abdoulaye euh, euh, Aline ziar ko bu baax moom itam ñaanal ko yàlla nuyu Abdou Salaam borom Instagram bi ziar ko bu baax nuyu Ngañ Ali moom itam ziar ko bu baax oustaz Pape Makhtar Sylla mhm. soppe yi bég nanu kontaan nanu yow itam nga tàggatoo waaye itam joxewaale sa numéro ndax am na ñoo xam ne bu ñu sañoon dégganteek yow ndax waxtaan wu am solo bi nga xam ne yaa ngi koy jaarale ci télévision Futurs Médias jërëjëf Oustaz Modou Fall ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci dalal yi nga ñuy dalal fii ci tubaarakallaahu télévision bi nga xam ni tubaarakallaahu liggéeyam yaatu na ci réew mi ak ci bitim réew mhm. tubaarakallaahu di la sant itam ci sa mbaax li Abdoul Aziz wax rek loolu moo am nit ki pour nga xam mbaaxam faw yi am faw ngeen dëkk dëkk bu yàgg wala ngeen ànd tukki wala ngeen seq alal loolu yëpp nag yàlla dafa dogal ñu ñu seq kook yow te gis ni lépp ngi rafet yal na yàlla sàmm la aar la amiin yaa rabbi barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu bu baax tubaarakallaahu suñu buntu ci kër Cheikh Seydil Hadj Malick Sy radiallahu taala anhu muy Serigne Moustapha Sy al Amin. di ko nuyu bu baax tubaarakallaahu di ko ziyaar. di ko ñaanal yàlla yal yàlla may ko fan wu gudd may ko wér yaram ci barke yonent bi ak i magam ak i rakkam yépp ci barke yonent sallallahu alayhi wa waaye noon lay nuyoo tamit Thierno Hamidou Yoroban bu Thierno Mouhamadul Bachirou eh, tubaarakallaahu taal maa ngi koy nuyu bu baax moom tamit di ko ziyaar di ko ñaanal yàlla yàlla may ko wér may ko kattan may ko mbooloo mi jullit noonu lay nuyoo tamit soppay Seydi Cheikh Ahmed Tijani radiallahu taala anhu te seen présidente tabarakallahu nekk Adja Awa Silla mhm. ak soxna Astou Tall soxna Maguette Ndiir ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ak mère Eva mère Oumou Anne mère Diatou Faye tabarakallahu meer Diatou Ndiaye ñoom ñëpp tabarakallahu maa ngi leen nuyu di leen ziar waaye noonu laay nuyoo waa Samsam yëpp jiitul ci suñu imam ratib rek imam Maodo Malick Seck su ma ko nuyoo rek nuyu naa waa Samsam yëpp tabarakallahu ziar leen ak waa ñaanal leen yàlla dafa leen tawfiq defal ñu ko defal ko mboolum jël ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu nag sama waa dëkk muy waa Rimbax baarakallaahu waa Rimbax maa ngi leen di nuyu bu baax tabaarakallaahu di leen ziyaar bi ñaan yàlla yàlla defal ñu gàmm ak jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam oustaz numéro bi 77 la 609 21 80 77 609 21 80 mi ngi noonu numéro oustaz Pape Makhtar Sylla ñu ngi nuyu suñu soppe xalifa Ababacar nekk ca Maroc tabaarakallaahu di jaay jàllaabe yu rafet yi ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di nuyu soppe yépp rawatina nag ñi nga xam ne ñooy safo groupe Futurs Médias di leen wax ni incha allahu taala tàmbali nanu plateau yi daañu gën a xam kan mooy Cheikh Seydil Hadji Malick daañu gën a xam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax événement bu am Tiwaawan wala événement bu am ci këru diine yi kama ca doy moom mooy télévision Futurs incha allahu taala daañu ànd ak yéen ba keroog gàmm gi dernier burdu leeral burdu cinq minutes de Pape Hann mbooleem loo xam ni dana bégal soppe Seydina Muhammad yépp da ngeen koy man di am ci télévision Futurs Médias yal na yàlla defal ñu gàmm jàmm ñu àgg ci gàmm gi yàlla may ñu tawfiix ba ñu am yéene dem Tiwaawan ñoom ñëpp yàlla yóbbu leen ci jàmm yàlla yombal lépp ci darajey Seydina Muhammad wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu في القدم وتليم يا إلهي وجدي أنا أجملتنا